asalaamaaleykum wa aksan bi da wa diaspora ñun la wa Sahel Network TV indi na leen programme bu bes tak bu tudda Sama Sa Sama Sa nek nekk na programme boo ni livestock la improvement of animals ke bu ko ne mu ngi yengu ci walu xar bey nak ganar pita dina ñew watana yo sa walu jar jar tey moo ku ñew ku ñew broda Abu Saho di champion génétique ka Bato Kunku waaw suñu fiance bro nakam yaa ngi cool alhamdulilah welcome ah nakam madame nakam waaw fiance waa tey kii laa ñëw sees yi bro naka xarit na non ñu ngi fine Mohamed am telling you ma ne ten champion léegi tey la female top. tëb na yëpp foog naa top, na about seventeen females you know the next month la na first one si la war a waatee. moom hmm? ah mbotee naka la. ah non mbotee ñëpp a see jot Gambia yépp waaw loolu moo suma plan daal. you know indil naa leen ko léegi ñoom ñoo ko jëfandikoo daal ku pare rek you know jël sa waala you know gis loolu mu ngi nële sax fële you know yeah you know. salaamaaleykum waaw ñu ngi nii gis nga. moo tëdda nii. moo champion bu mag bi. -hmm. कि hmm. म जनरल मारा को champion म चैंपियन म चैंपियन बिल takip jantal mu ngi ni mohammed ki mo mara jantal salum salum presso may jabari saaxo waaw dama rew rek pour wax leen ah, buñ jógee America ñëw fii how life is so easy but start business bii nii waaw dina yëpp di wax ñëpp ñu nekk si diaspora bi ñu ñëw bo dellu si def business parce que it's more easier maa ngi ku time boobu ñu nekkoon America man rek a nekk si kër bi 24/7 abu dafa dem liggéey toog foofu miserable wéet ak yooyu waaye fii nii léegi life bi is different ñu ngi fi 24/7 ñoo nekk together suñ jógee suba yóbbu suñ xale yi school jógee school ñëw nekk ci xalri ba guddi nga xanaa dem jëliwaat xale yi school so the family is so much together ñu ngi together ñu ngi am fun di def suñ business di enjoy suñ life rek fii Gambia. I love my love my sheeps. Mm, and what what's your what's your female sheep name? It, it's baby. baby. Yeah. and love baby and, and gentle Mara. And play with baby. You like playing with baby? Yes. And gentle Mara? Yes. Yes. You have plenty of sheep, huh? And AK-47. waaw comme nu ko suma jabar ileen waxee rek time bu nekkoon Amerika moom wax dëgg yàlla moom miti woon na suñu ñaar yëpp waaw parce que ñun dañ nekk couple yoo xam ne dañ buggante dañ lay bugg spend all our time together Wow, one month, uh, on the like one month. Yes. Hmm? You like playing with your ships? Yes. -huh. It's different from America. Yeah, you can play with your ships. Now let's put that thing here. Oh, passport, more more apa? More sama mai. Bawa hamulo tu sama mai nak. Kimo press IJ. E Wah, mau presiden presiden IJ e lengkap tu moom amagul trimon andi andi twenty tat la am trimon mu nekk xar bu am yaakaar eh. ki maulud waaw mom saa yu algoor bi la sëti Si benn ak génn rek start yi mbee mbee so yaa si ñoo kind of products, yu am fini si Bazare SB Shah. di nga gis xar boo xam three months waaye boo ko hole, you know xoola lii la ku nekk buga si élevage si laa lii two months one week lah be two months one week moom lah. bo two months atau uh, one week ak dara ni ñetti fan nama magee ki. Wah. ñetti fan lah ko so nekkoon si army bi di dem liggéey bàyyi ko gannaaw ak su ma amee pour deploy for couple of months was hard for her and I so loolu tax suñ focus bi yëpp ñu defoon ko daal pour mun a dellu si baakoom you know dugga si agriculture bi you know so léegi ñu ne alhamdulilah daal because suñ time yëpp ñu ngi ko spend together with the kids you know di def suñ passion yar xari ñu lay yar ganaar itam ak yooyu noonu maa ngi encourage tam suma brodas yu nekk si diaspora bi yëpp ci amulek na try ñew ba home Why do you cry? Hmm? They take your ship away? Hmm? But your ship was going to Senegal, huh? Hmm? Yeah, but you have plenty more, okay? Huh? Hmm? Okay, don't cry anymore, okay? Okay? You just give your ship to somebody else, huh? You have plenty more, right? Huh? Okay. Okay, it's gonna come back, okay? It will come back, okay? waa mbokk yi programme mu leen amaloon fii la fii la moo am ba benn yoon ñoo leen fii si kii di abu Abou Saho mit famille bi waxtaanaa moom si xar yu rafet yi xar yu baax yoo ne tey moom la amee si eh, kiram di si yëngatu képp koo xam ne bëgg naa fóolu programme bi tam ne fi bàyyi suñu nomba soo ñu koolee di ñu am si Sahel Network tii